ñu tase ki nga xamante ni tey mooy champion mag bi di Lac de Guiers waaye nag dañu wax ni diina jamono waaye nag bànneex ak naqar ñoo ànd tey ñu am bànneex waaye ñu am naqar ci li nga xamante ni si tey mooy suñu papa ji génn àdduna muy Père Double Less di sa xarit di sa baay di sa lépp féete fu ne ndax yar boo ko wan tey lan ngay wax réew mi ak lan nga koy témoigner ci bésam bi nga xamante ni tey suñu borom daa dogal

du ma ci nekk di ci wax loo xamante ne man dafa am fum ma yóbbu quoi parce que Père suñu pàpp la ñun ñëpp donc yàlla suñu borom bu soxlaa bu jëlee rek mënu ci dara xam mhm. naa loolu métti trop nag mhm. suma xel dafa dem ci bi yàlla dogalee tey ñuy def caravane nga ànd ak Balla Gaye 2 ñu nekk hôtel la Joola tëdd mu xëy di leen yeesi pour ñu dem Sédhiou def Mali Fara dem ba dem fi nga xamante ni si tey euh, euh, euh, mooy mooy mooy Samba ba kër ngay àgg suna Karantaba bés boobu bu sama ci xel demee sama yaram day daw waa xam nga Père Roubaix suñu lépp la woon ah suñu suñu papa la woon suñu conseiller la woon suñu lépp la woon tey bu ñuy dugg Casamance fu bëri moo ñu ko fa doon dugal foo xamante ne ñun ñi nga xamante ne ay doomu laxkat lañ fu bëri moo ñu fo doon dugal pour ñu xam ne ak yow Père Mbaw defe naa fekkee nga lépp kon donc tey euh, vraiment ñàq nañ